bonsoir amis fidèles internautes yu Wanema TV tey nag dañu déplacé Wanema ne ni euh, moom mooy Mbour Géej euh, fi ñu nekk nag tey si Mbour mooy fi nga xamante ne moom mooy euh, stade Caroline Faye gis nga ko li sama ginnaaw soo ko gisee da ngay xam ni kenn rek moo xewle ah en tout cas c' est l' la jeunesse kooku mooy kan Waly Ballago Seck Framaren live tey la ñuy wax ak ma gis ngeen mbooloo bi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw tey seet si ki nga xamante ne ni moom mooy Waly waaye tamit conseil bi li si gën neex mooy que ni ñi ko organiser muy l'ami

inchallah le 26 octobre au Dôme de Paris ok voilà qui nag euh, xam nga moom il est plus à présenter hein. ah moom miin nañ ko miin na aussi li nga xamante moom mooy suñu micro Cheikh Anta ñu ngi lay nuyu mais maa ngi lay fay lu bare bare bëri ndax yow saa boo ma tàllalee micro rek xol sedd ndeysaan loolu neex na acca xool sedd ba tax na tey mbégte moom moo ñu indi fi nga xamante ne moom mooy stade Caroline Faye euh, ñu gis ni Wally Seck dafa annulé soirée yëpp mais tey mu ne direction Mbour laa jëm naka ngeen dundee soirée boobu waaw soirée bi man pour annonce le pour le 26 parce que comme moom nekk concert bi ñuy mujj teug ci weer bi ba le 26 donc xamna ci la ci la ñuy tàggoo rek mais le 26 mom lool dafa am code. ok le 26 dafa am code parce que xam naa loolu sax am na yu ma si euh, soxla yoo xamante ne waale si boppam pour la ko Alors alors euh, Ramdan naka ngeen waajalee le 26 parce que le 26 déjà hein? tout le monde en parle maintenant. xam nga je euh, ma ko pas expliquer. waaj gi dafa bëri façon ndax dafa war a ànd ak spectacle dafa war a ànd ak lumière dafa war a li mu boolee bari donc man ni ma ko mën a xaymaa mooy ñambaan bu am paañ keccax daqaar geeg kaani geeg waree fa maanaam manage la boo xamante nii parce que il faut gëj dañ gëj Paris Paris dañ fa gëj lool kon donc war nañ fa indi loo xamante nii ñoom it dañ koy yëg noonu la demee ok merci beaucoup kon ñu bàyyi la ñu xool lan nga ñuy may tey si kaw. mais sama xarit bi ah sama xarit bi moom sama xarit bi quoi non sama xarit bi laa naan taas baax na kii da kii ba nag si kii da baax ceekit. ok voilà xam nga ba tey nag ñu ngi si biir xam euh, daan ñu taxaw ak ki nga xamante ne moom mooy Xaali Mbaye atia euh, Xaali gannaaw ba la nuyoo laka ngeen waajalee li nga xamante ne tey moom mooy lan ngeen fa yéenee euh, may waa Mbour. waa mbuur nag suñu dëkk la. Waly àdduna moo ko bëgg mbuur bëgg ko trop macha allah moom it mu fonk mbuur xam nga Wally Wally dafa fonk bu génn buy génn ndakaaru da fonk parce que nit nga ne cib dëkk ñu la fa bëgg bari lool ñi war laa bëgg a gis te mënuñu laa gis kon euh, lii bu amee fii ci dëkk yi mbuur ak bu ñu génnee moom xol bi day sedd parce que day xam ne xel ni tey ji fi mu jëm dëkkam la te nag Wally yàlla na ko yàlla la far cat ci barke Seydina Muhammad ndax ñun dañuy xool ci kanamam sax bu ñu waree génn dem ci dëkk yi nii day kontaan barke allah ji baar da ngay gis muy kontaan nga xam ni kii fi mu jëm ak ña muy fekk ji fonk na leen respecté na leen jox na leen cër moo waral baglaay bi mu fi teg fii ci mbuur lu nu mos a jéewee ci réseau yi rek indi na ko tey mbuur moo tax tey mbuur di ngeen xam ni waali tey lay tooj mbuur de. bu paree ci stade bi nawetaan sax dootu fi amati waxantuma la concert maa lox li man xam nga si kaw loolu xam nga tey ji instant yi ah, ah, dëkk bi mi ngi riir ah, parce que coow li bëri na ñëpp ñëpp ñi ngi waajal le 26 lan ngeen pare. waaw le nag xam nga Paris mooy li wax rek euh, dañuy ñaan yàlla ñu dugg ceeg bisimilah gën a ceeg alhamdulilah rabbil alamin ñu dem ak jàmm fekk fa jàmm dellu seeg jàmm waaye waali waali min na bis man man ñun ñi daan nag moom nag bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax. ñun bis bu rëy dañ koy yanu ñun waali teg ko fii barke allah ji baara Mbàkke dafa mën dis parce que xam na li muy def mën na li muy def xam na fi mu jëm min na fa ñun dañuy bett moom ñun ñun lay njëkk bett ñun ñuy musique seem ànd ak moom waxutuma la ak nit ñi ci stylam ci sañseem ci mën a woyam ci seen ci tout moo tax le 26 liy tubaab bi naan exclusivité. moom tamit ah, ba tey je pense que xam ngeen ko baax aussi si li nga xamante ne moom mooy biir Ramadan Benjamin ah, moom mooy saf-safal si la bokk ah sëñ Fallou maa lay ziar. mais ziar naa la di nuyu ñi ñuy di nuyu équipe bi nga àndal di nuyu waa di leen wax tey di yomb. ok ba tey xam nga si loolu laay desandi am muy euh, gis nañ Wally Seck tey mu daal di ñëw fi nga xamante ne moom mooy stade Caroline Faye tey mu nañ xam xam euh, daan lan la waajal lan la pare tey pour may ko ñi nga xamante ne moom mooy population bu Mbour. lu méttee rek dèjà xamante nañu ñu ne ko waa Mbour yàggul incha allahu rabi ba ci kanam du ma wax bëgguma wax waa di yàq affaire yi. am na loo xam ne faaw ñu dugg si ah, parce que temps yi moom waa daan seen yaram dafa tàng parce non du ma du ko wax sax sëñ Fallou yow lan lan parce que gis naa ni dafa am daal loo xamante ne nii Ramadane tey dafa mel da mi ngi koy waajal ñu gis Ramadane annulé na soirée yi ah, Dakar sax instant sax pour ñu jot sax si Wally Seck fi mu toll nii dafa xaw a métti lan moo xew. waaw lu lu lu yëngu lu ko yëngalu ko doole te Paris dañ faa géej muy 26 octobre te Dôme de Paris dañoo gëj Paris am lu ñu warloo ak ñoom moo tax Wally jël décision wu annulé soirée yi. ñu tëju am yu ñuy pare yo xam ni ku ñu ko nettali di nga jooy. tey su ma la doon laaj yow en tant que koo xamante ni yow yaa ngi si biir groupe bi naka ngeen préparé li nga xamante ne moom le 26. non xam nga gars yi ñaan benn affaire mooy nañ ci def code dañ bëgg def code rek ba ba ba ay ko ko tardé. kon daa affaire bi code la non dañ cee def code en tout cas Paris dina tàng dina yàgg dina neex. kon ñu bàyyi nga dem waaj. ak wàllug la Ramadan jeex na dañu déggoo jaay fekk na. Euh, guddi waali la guddi faramaare na mais aussi euh, guddi ñëpp la li kii nag moom xam naa ñi nga xamante ne dañuy faral di gis borom mécin dañ koy xàmmee bu baax a baax euh, muy ànd ki nga xamante ne ni moom mooy daal seen j'espère que juumuma juumoo ndax maa ngi ànd ak daam moo tax may la koy wax noppel ku doon waaja wax noppel ku dem bay wax ba seen daam seen taxaw di nga ne pat sinon ma dóor la mat su ma doon def tat sama jabar du teggi nat ku fi taasu ñoo ko fat yëf la mais attends avant tout sax balaa ñuy waxtaan euh, yeen yow ak euh, Dame sen yeen euh, création yi ngeen def nii naka lay non Dame sen mom boy andal mom nga bande ndax Dame dembi bande avant tout Dame mon boy andal mom bo bande wu damal nga tok nee Dame waro yaro ci ay d'accord alors naka nga gissé tay li nga ni mom moy événement bi li nga le 5 stade Caroline waaw ndax ku day bu doon mbër ma xam ne làmb ji moo fi man ndax fi ngay séntu booy yëpp da nga ko fiy muy booy bu am jom na booy bu baax booy bu bëgg daam seen ba fu mu jëm yóbbu ko waale noo defet mais si kaw lool est xam nga lan mooy xew après événement bi ah xamoo lan lay xew su waali si lan lay si lan la jëm non après événement yi moom waale mu ngi am yeneen tournée yoo xam ne yooyu lu si kanam rawati bët d'accord naka ngay waajale le 26 euh, au au Dôme de Paris non loolu dama koy toj ndax loolu chaque année waale yóbbuñu zone bi si passé mën a dam seen kon yeufi amul xaar barke Serigne saliw waaw kontaan ci yow yow tamit yow tamit ma lay ñaanal sen télé bi jëm kanam ndax li dafa yombut xew-xew bu melni ñu duggal la ba pare ngay def lula neex yéen def leen lula neex dund leen 111 ans. ndeysaan. salaamaaleykum salaamaaleykum le 26 doom de Paris kii ak ñun dañ ko def doom. doom de Paris dañ doom. doom de Paris le 26 dañ ko def doom. parce yaa Rasulaay. xaar leen ñu yéen ñëpp